góor day am mbokki Sénégal mbokki diaspora du bees amatina ci télévision Futurs Médias en collaboration ak Serigne Fallou Luc Nicolaï combat bi ñëpp di xaar muy le combat royal diggante Modou Lo ak Ama Baldé cey boobu combat mbokk yi ñoom ñaar jàkkaarloo woon nañu Ama Baldé toogee côté bële Modou Lo toogee côté bee bii yoon nag laay bon direct lay doon si télévision Futurs Médias Sénégal toj Modou Lo di wax Ama Baldé di ko tontu sécurité bu mat sëkk nag laa wax moom la ñuy def ci boobu la jàkkaarloo samedi ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre bu 22 heures jotee newoon naa la événement bu mag télé bu mag télé bu mag événement bu mag ak Serigne Fallou Nicolas mbokk yi jàkkaarloo bi ak direct bi loolu lépp ki leen ko may du kenn ku dul KP di transfert d'argent bi gën a wóor sénégalais yee ko moom ci Sénégal la nekk ak ci bitim réew ku mos jàkkaarloo xam ni jëw a kon événement baa ngi noonu le 21 octobre à 22h en direct ci télévision Futur Média seen Fallou Nick kenn du yow Futur Média kenn du yow waaye KP kenn demul nga des ndax moo ko maye ci réew mi waaye ku ko bëgg nag ci bitim réew nii ngay def da ngay dugg seen affiche point com jënd code bi mbokk yi kon nag événement baa ngoog samedi bii le 21 bu ko kenn tardé face to face Ama Baldé Modou Lo royal le novembre ca arène nationale drapeau Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass Modou xarañ Lo Modou xarañ Lo Ama Baldé ay ca final baa ngi noonu Toubacouta moom ngeen jàkkaar lool moom laay usine technique bu Ngoundiane mu nekk drapeau Alpha Sambou maire de Nguéniène Manga 2 moo fiyote woon rek structure muy Manga production tegaloon fi mbëri 3 millions eh, eh Toubacouta la de moo demoon ginnaaw le natif moom mooy bëree ak usine technique moo dëkk Nguñaan moom usine technique ñaari mbër nga sax plaqué Touba plaqué na ko mu bañ mu xel ko mu bañ eh usine technique nee naa leen daa naqaree bëreel neexuli affaire usine technique moom la ak Toubacouta final poids lourd fii si terrain gal gi di nuyu Aliou Ngom seen président fans club Bokarli TV di nuyu fans club bi yëpp aw ma seen fay góor jigéen mag ndaw ñaari mbër yaa arbitre arbitre ñaari mbër yaa nga ca eh Toubacouta Toubacouta usine technique ñaari mbër yaa nga ca waaw moom siis la rek mënoon ñu may arbitre mooy siis mënoon ñu may tuuti rek ñu mën a am saabi normal ay ca ñaari mbër yaa nga ca Toubacouta usine technique final poids lourd di nuyu layti seen mbéy la gëj kooku suma waay la yàgg nañ moo di seen dama la mën a ñaari mbër yaa nga ca Toubacouta moo leen woon ginnaaw de usine technique ngeen xaw a jàkkaar lool moo jege Ngunjaan eh usine technique dama jël ko Touba bañ na daf na jël ko mu faqataat ko Touba bañ combat bu métti ngeen di gis noonu final poids lourd du mën a yomb ñaari mbëri ku daanu tu n'auras pas démérité ku nekk jaayante nga ba yegg final Toubacouta ngeen jàkkaar lool mooy njool mi eh final arbitre Waly mi ngi wax ak ñoom si yaa ngi noonu di xool méticuleusement. combat bi dara bëgguñu mu rëcc leen ci diggante Toubacouta ak usine technique usine technique jël na ko mu may di nuyu les sénégalais de la diaspora ñiy wetali ko nit nee naa la tey gis ngeen bi ni mu mel wala terrain gal gi mu mel manga moo fi woote woon suñu père suñu xarit doon sargal Alpha Sambou maire de Nguéniène waaye su ma nee Alpha dem ci mbalka maak liyu coor doom ndeyam la gaynam la ñoom ñaar ay waay lañ eh ñaari mbër yaa de gis ngeen terrain bi nu mel gis ngeen portable yi gis ngeen flash pour immortaliser ce moment les férus de la lutte ont répondu présent à cet énième appel de Manga avec sa structure Manga, avec leur, slogan bien sûr le plaisir de la lutte et ce terrain Galgui on est en d'assister à un très rude combat beau combat bien sûr qui oppose Toubacouta on peut dire aussi Ahmadou Bamba Sarr qui nous vient de Kampong Ngeko. Toubacouta daan na ko Toubacouta daan na usine technique. mbin mbin jàpp mbin jàpp ak yaamu Dakar yaamu moo xees moo nekkoon moo bokkoon équipe nationale moom yaamu moo jóge Pikine moom la ak mbin jàpp caajaay mbin jàpp wër eh wër ndama ba dañ na mbin jàpp caajaay yaamu Dakar yaamu daw na jëlaat yaamu ak mbin jàpp mbin jàpp jël tànk ba eh ñaari mbër yi li ñii li ñuy def lii mbin jàpp ak yaamu. rëpp 3 bi arbitre nee na dara xawul bëre bëre bëre bëre bëre arbitre nee na bëre jëm final ne xoola waaye bi final raw gàddu la faamu xool ay ca ñaari mbër yaa nga ca bee mbil njab ngeen jaakaar lool moo jóge caajaay suma xel dem na si saltigi général borom caajaay maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu waa caajaay yëpp ay ca ñaari mbër yaa nga ca su ma nee caajaay sama xel dem sama jigéen Fatou Gueye Diop tay nag daf ma bàyyi mais noonu la maa ngi lay ñaanal jàmm rek la Omar Youm ay ñaari mbër yaa nga ca de Yamou Dakar eh ñaari xale yi bëri nañu ah. Yamou Dakar mbir jàpp caajaay Pape Sarr la mën a fàtte sama waa ji borom Apple shop borom Colobane borom iPhone yi aja eh Yamou wër wër loo plaqué mbotti nañ la rëpp na dara wër ndombo arbitre nee na daan na de. daa mel ni jëli am na de daa mel ni jëli am na de Yamou Dakar daan na ko Yamou Dakar daan na Mbine Diab ah? ah Ibou Ndiaye laa tudd. dëkk fan ngi noonu final poids léger Papa moo féete Ndeye Dior wala nga ne Robert eh, moom la ak Aliou Zendayane daw na jël ko de di nuyu Aliou Dione. Ibou Dione Ibou Dione. ngaraña ngaraña ko eh, kooku sama waay moom Ibou Dione maa ngi koy bëgg ayca ñaari mbër yaa nga ca dara xewagul Papa wala nga ne Robert 2 rek moom la ak Aliou Zendayane ñaari mbër ya nga ca eh, Alizé moo yore ngeen bul xonk li moom la ak Pape Ba Pape Ba jël tànk ba mu mooy final poids léger waaye di nuyu Aly Ngom seen président fan si kër Kali TV Mboti wër na ko ndombo de wër ndombo ba dëñ na Pape Ba ak Alizé ma ngi koy faqat di ko tër ma ngay bañ eh Pape ma ngi koy bay ma ngay bañ ñaari mbër yaa nga ca kat appi arbitre ne kat appi ba mat na Pape Ba jël na lamb ji Pape Ba daan na Alizé bu ndaayaan Pape Ba si Toubacouta mu yëkkati ko final poids lourd góor day am doole mbokki Sénégal mbokki diaspora du bees amatina ci télévision Futurs Médias en collaboration ak Serigne Fallou Luc Nicolaï combat bi ñëpp di xaar muy le combat royal diggante Modou ak Ama Baldé cey boobu combat mbokk yi ñoom ñaar jàkkaarloo woon nañu Ama Baldé toogee côté bële Modou Lo toogee côté bee bii yoon nag laay bon direct lay doon ci télévision Futurs Médias Sénégal toj Modou Lo di wax Ama Baldé di ko tontu sécurité bu mat sëkk nag laa wax moom la ñuy def ci boobu la jàkkaarloo samedi ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre bu 22 heures jotee newoon naa la événement bu mag télé bu mag télé bu mag événement bu mag ak Serigne Fallou Nick Nicolaï mbokk yi jàkkaarloo bi ak direct bi loolu lépp ki ko may du kenn ku dul KP di transfert d'argent bi gën a wóor sénégalais yee ko moom ci Sénégal la nekk ak ci bitim réew ku mos jàkkaarloo xam ni jëw a ndax kon événement baa ngi noonu le 21 octobre à 22h en direct ci télévision Futur Média seen fàllu Luc Nicolaï kenn du yow Futur Média kenn du yow waaye KP kenn demul nga des ndax moo ko maye ci réew mi waaye ku ko bëgg nag ci bitim réew nii ngay def da ngay dugg seen affiche point com jënd code bi mbokk yi kon nag événement baa ngoog samedi bii le 21 octobre bu ko kenn tardé face to face Ama Baldé Modou Lo combat royal le novembre ca arène nationale drapeau Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass. Modou xarañ Lo Modou xarañ Lo Ama Baldé Fulado